kuréel googu waaye itam ngir ñëwaat justement ci seen taxawaay dañuy euh, dalal euh, Sadikh ñas euh, di jamono ji ki nga xam ne moo jiite RADDHO Sadikh Niass ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci démb ak tey am aussi ànd ak yow ci waxtaan wi. waaw eh Fatou maa lay fay di leen gërëm ci invitation bi. Mm. di nuyu seen mbokku auditeurs yëpp ak waa rajo bi foofu waa rajo Rewmi FM mm-hmm. jërëjëf Niass ñun itam ñu ngi am mbégte lool dalal la ci démb tey muy guleet ni ma ko waxee nag tey rajo la ñuy waxtaanee ci fànn bu ne ndax ñaar fukki fan ak benn weeru avril atum 1990 ci la ñu ko taxawaloon ndax mun nga ñëwaat justement ci contexte bi ñu sancee woon rajo fii ci Sénégal. waaw rajo contexte bi ñu ko sancee dafa nekk contexte boo xam ne bu euh, particulier la woon ndax. dafa nekk ci jamono boo xam ne ci Afrique dañu doon euh, dajale daje ay jànkoonteel ak ay jafe-jafe ci wàll àq ak yelleefu doomu aadama euh, ñu gisoon ne ci moment yooyu ay cent 1988 89 euh, ci la ñu taxawal comité d'initiative te comité d'initiative bi alors ay intellectuels ñoom ñoo taxaw ci université de Dakar sax lañ passé Euh, ñoo xam ne nii jóge nañ ci gox yu bëree bëri ci Afrique euh, ci Afrique euh, booba booba fekk na tamit Afrique dañoo gisoon ne université Dakar université bu am solo la woon maanaam kàngam yu bëri ci Afrique foofu lañ doon ñëw ñu leen di former ñuy dellu ci seeni réew alors kàngam yooyu nag ñoom ñoo daje nekk ay professeur ñu ñi ay étudiants Euh, ñu daje ne nañuy def comité d'initiative pour wax daal ne di ñuy xam ne gis nañ ko ci Afrique dañ ko war a ñaawlu muy jalgati àq ak yelleef doomu aadama yi ni mu bëree woon boobu euh, bi ci gën bi nga xam ne ci Mauritanie ci Mauritanie sunu voisin yi gisoon nañu ne nit ñi ñuul ñi alors doon nañ leen gis sonal di leen bundu xatal ak euh, ñi nekkoon ci armée bi Euh, ba nga xam ne euh, massacre yi dafa bëri woon quatre vingt dix quatre vingt neuf ah. euh, ba indi woon sax li ñuy wax diggante Sénégal ak Mauritanie ak ñi bëri ñu daal di leen jël Mauritanie indi leen Sénégal mm-hmm. am tamit ay mbokk Mauritanie yi nekkoon Sénégal aussi ñu jël leen fi yóbbu leen Mauritanie boobu bokk na ci jafe-jafe yi gënoon fës nga xam ne nii alors intellectuel yooyu taxawoon nañ ne laal lii moom laaj nañ ñu taxawal kuréel goo xam ne nii lu amati ci Afrique ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama ñu mën a taxaw waxal ko suñu bopp loolu mooy contexte bi nga xam ne moom moo taxoon ñu créé amoon na yeneen ñaawteef tamit boo xoolee ci Afrique Euh, comme ay Congo yu mel ni ay Zaïre ak yooyu mm-hmm. booba amoon na ay jafe-jafe yu métti tamit yu xawoon a tolloo ak loolu ma doon wax loolu ko gënoon a métti mm-hmm. euh, ci la intellectuel yooyu mooy douze nationalité booba sax laa lay wax na ci lañ ko ñoom ñoo booloo woon amoon na ay Malien ay Tchadien ba léegi sax rado ah, Malien yi ñu nga fa woon ah, am na ñoo xam ne ba ñu seen ay réew ay ay ay Nigérien ñoo xam ne ni tey am nañ gis nañ ay kàngam yoo xam sax yoo xam ne ay ministre lañ ñu ngi mm-hmm. Niger ci kuréel googu lañu bokkoon ak euh, ñoom Tiembale drame ñu nekkoon Mali nga xam ne tey ay kilifa lañ fa Tchad amoon nañu fa amoon nañ nationalité yu bëri daal ñoom ñoo taxawal moo tax ñu tuddee ko rencontre mm-hmm. muy ndaje africain yoo xam ne ni dañoo taxaw daal pour ak ak yelleefu doomu aadama Mhm. justement ci ñi ko taxawal ñu jël initiative bi euh, bëggoon nañu euh, xam leen ñan la woon jamono jooju. waaw ñi ko ñi si gënoon a fës mooy euh, ay professeurs yi nga xam ni mooy waali Coly bokkoon na ci moom sax moo ko njëkk a jiite ku ñu naan waali Coly Faye professeur de lettres la woon. Mm. waaw moom waa ñaaxar la ci kii bi fay ñaaxar yi la bokk. alors ak ñoom Alioune Tine bokkoon na si. amoon na tamit ñu naan euh, Ibrahima Kane Ibrahima Kane ci la bokkoon Dieudonné Pandoré Dieudonné Pandoré ñooñu ay professeur lañ euh, faculté de science la nekkoon euh, Tchadien la moom bokkoon na ci Tom Togobaye benn si Sikini Togobaye moom tamit Tchadien la tey nekkoon na sax kilifa ci université de Dakar mm. amoon na tamit ñoom Amadou Ly professeur de lettres la Euh, amoon na ay euh, ay ñeneen comme ñu waxoon ñoom Thiemele Dramé ah Cheikh Tidiane Gadio bii nii ah, tey ci la bokkoon ancien euh, ministre d'État hmm. ah moom ci membre fondateur yi la bokkoon a ah, amoon nañu soutien bëree bëri bëri am na tamit tey sax ñu nekk ay kilifa ci nguur gi am na ñu bëri boo waxee ñoom ñu ne la man ci membre fondateur rajo yi laa bokkoon hmm. ah, loolu dëgg la ay Amadou Sall ñu si bëri daal ñu ngi ci activités yi tey ñu si bëri bokk nañ ci ñi nga xam ne ci ñi taxawal parce que boobu université bi aussi amoon na recteur bu mag bu ñu wax euh, euh, kii ñang euh, recteur moom tamit daf ñu daf ñu jàppale woon waaw yow it ci membre fondateur yi nga bokk moom def ko juróom juróom la defoon sax office kii wu rado euh, moom moom rectorat. d'accord daf ñu mayoon ñu ñëw foofu parce que amuñu woon machine amuñu woon dara. Mhm. ñu ñëwee secrétaire euh, directeur lañ daan ñëw. mu daal di ñuy jox secrétaire am moo ñu doon tàppeel document am na document yu bëri sax dañ ko daan bindee loxo mhm. alors que mënoon a bind si ñun tamit ba léegi bu bindee da ngay foog dañ ko tàppe mhm. <laughs> Ibrahima Kan la moo <laughs> daan bind euh, contenant yi calligraphe la ba léegi sax moom dafa mën a bind <laughs> mhm. waaw ñooñu daal ñoo ci gënoon a fës ak nag ñoo ngi topp si seen gannaaw nag étudiants yi étudiants yi moo doon ñun étudiants yi mag yi abu ba Mbodj moom tamit ci comité d'initiative bi la bokkoon mm. man mi ñoom euh, euh, amoon na ñeneen ak euh, ñi ci toppoon ñoom Amadou Kane maître Amadou Ali Kane waaw ñoom Ali Kane ñooñu ñoo ñëwaat après mais ñooñu fekk na bi ñu ñëw ñëw ay avocat lañ woon mais ñun boobu ñun ay étudiant mm. ñoom ñoo toppoon ci ñooñu parce que comme ñu ngi ñoo doon seen ay étudiants ñoom bu ñu defee dara ñun ñu ñun la ñuy njëkk a jël teg ñu ci kanam. ñoo daan def propagande ay militants. Mhm. def man maa ñëkk a nekk président commis commi commission universitaire. Mhm. de de waa de de la RADDHO. ah ñu recruter ay ñu ne ni ñoom Yaya Birane Wane ñoom Nantale Coulibaly léegi ñu ngi ci CEDEAO. Mhm. ah ak ñeneen ñoom Jojo Koité Jojo Koité tamit moom dafa doon. secrétaire la woon direction euh, ci ñu ñëkk a liggéey ci rajo la bokk moom ñu ngi ci milité ba léegi Mhm. ñooñu ñoo gënoon a daal ci membre yi nga xam ne ñooy membre yu njëkk yi. Mhm. ñoom Aminata Dieye mi ngi am ministre léegi moom tamit ci bureau bu njëkk ba la bokkoon. Mhm. waaw alors 90. Euh, yàgg na yàggul mais ndax boobu euh, àq ak yelleefu doomu aadama euh, xeex ko mel na ni tey ni mu mel xëy na ci jafe-jafe yi wala siiw gi mu siiw wala nit ñi peut-être gis-gis ñu ci amoon. eh boobu kay melul ni boobu yombewuloon ni moo tax ñu bëri day naan wala mbir yi avancé wul da ngeen di alors que bu njëkk ba xeex ak ak yelleefu doomu aadama ah, jafe woon na lool jafe woon na ci Afrique lool lool mais même kii ci réew mi malgré que Sénégal réewu démocratie bu yàgg la xeex fi ak ak yelleefu doomu adama tam yombul woon maa ngi fàttaliku suñu programme yi njëkk yi ñu am mu ne prison ñu def ko ci prison ñu financé ñu suñ premier financement ñu war a xool euh, condition yi ñuy vivre ci prison yi mais bu ñu demee ba ci ministre de l'intérieur di ko laaj ñaan ko pour ñu mun a am accès ci prison yi def na ñu mais yéen munu ma leen a may accès ngeen dugg ci prison yi loolu ñu luñ ko def sax xalaatuñu ko yéen da ngeen war a dem sax ngeen kere parti politique moo gën li ngeen di def nekk fii di wax alors dee di ñuy accuser ne ñun ay opposant lañ booba mhm. loo daan def rek dañu naan yow opposant nga mieux moo nga dem def defi parti mhm. politique <laughs> boo gën ngeen nekkee fii kooku tey eh, demoon na ba léegi ba mu jógee ci nguur gi tam dafa ñu <laughs> ci ñun daal di ne nañ ko dimbali nangam nangam ndax moom bañ ko bañ ko ba mu jógee ci nguur gi nguuru PS la woon mhm. ah nguur googu bu mu demee nag alors euh, maa ngi fàttaliku kooku ndeysaan Euh, bu mu demee di tukki aéroport ñu arrêté ko mu daal di ñëwaat ci rajo daal ne ah maa ngi jéggalu <laughs> te moom moo doon ministre bi ñu doon wax loolu. Hmm. loolu moo lay wan ne jafe woon na lool jafe woon na lool maa ngi fàttaliku tamit bi nga xamee ni ñu ngi xeex pour àq ak yelleefu jigéen bi hmm. eh, li ñu daan activé naan wala ñii daal ay tubaab ñoo leen fi yebal. ay ñëw pour voilà ay féminisme boobu. Euh, rob la daal kii gën a kii mais nga ñëw indi ko fii ba wax ay affaire euh, yemale góor ak jigéen ah dafa kon discours boo xam ne nii daal du discours boo xam ne bokkul ak liñ daan dégg. Mhm. fii yenn ñu jóg ci rajo yi di waare naan ñii daal tubaab yi franc-maçon yi ñoo leen fi indi waaw bëgg a yemale góor ak jigéen loolu mënul nekk ah euh, ñun ak sax ak kii. ñu def ay coalition di wax ay parité boobu yàgg na boobu ñu ne loolu soo la rek xalaatuñu woon sax ne loolu ñun ñu ne noo ñun euh, maanaam méthode de travail la woon mais parité bi sax ñu ko woon noonu foofu sori na mm-hmm. ñu xalaat ko mais dañ ko doon def parce que bu ñu ko deful alors euh, gëdd bi ñu wax jox jigéen duñu ko jox ci suñu réew mm-hmm. muy égalité droit ak yooyu bi ñuy dem bay wax waxu xale alors moom ah, affaire jigéen yi maa ngi fàttaliku sax ay affaire Safia Hissène ñi nga xam ne yàgg nañ ci xeex boobu dinañ xam ne ñu wax loolu Nigéria la woon. Mm-hmm. jigéen boo xam ne nii dañ tëmbaloon ñu ne dañ ko war a rey alors ñuy ñaan euh, ci àdduna bi yëpp daal affaire bi jool yi ba nga xam ne affaire Safia Hissène egg si woon na ba ci rajo jël xeex bi. Mm-hmm. di ci dox di ci dox pour wane ne daal euh, rey ko euh, doonul du gën mun naa ñu xool. Euh, bu dee gisuñu ki nga xam ne góor gi moom waxuñu waxi góor yi boobaa comme jigéen bi amu na rek moom dañu ne nañ ko rey bu amee doom rek nañ ko rey. Hmm. léegi nag ci combat boobu sax amoon nañ ci soutien euh, euh, Assane Serigne Cheikh kii Cissé hmm. bu Kaolack nga xam ne moom miinoon na Nigéria xam na bu baax diine ji ñu wax daal ne période boobu moom comme dafa am ñu ko si rey mhm. te ñu ngi ñaan ba ñu mën ko euh, am ay circonstances atténuantes yoo xam ne nii duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko faagaal mhm. xeex boobu lu metti la woon fii ak jolli woon bu baax a baax mhm. ak affaire xale yi xale yi tamit duñ ci commencé di wax dañu naa ñii dañu bëgg a ñëw réewal seen doom yi ndax xale amul benn ax waaw xale yar ak dóoru xam nangam nangam boobaa donc boobu culture bi ci boppam am na affaire ak ak yelleef doomu aadama tam culture la war a doon. Mhm. donc loo xam ne da koy jëmbat di ko suuxat ba ba nit ñi mun ko comprendre. Mhm. ba mun ko dégg. te booba nag déggin bi demeewul woon loolu looloo tax mu jafe woon lool ñu euh, ñuy wax ci ak ak yelleef doomu aadama prison yi moom dugg fa wax waxuñu il a fallu pour contourner mbir mi sax. ba léegi def nañu activité boobu may wax def nañ ko ba mu yegg amuñu accès ci prison dañ mhm. di kal ñi nga xam ne ñoo génnee prison ah ñu ñu libéré naan di laaj yan condition ngeen man ni maa ngi fàttaliku Tiwaawoon ba ma demee mhm. eh, ci milieu yi foofu kaar kaar bu xaw mhm. ñëw fekk fa ñi nga xam ne libéré nañ bees ñooñu ñu ñu ñu leen di gis ñu leen gis ñu ñuy wax condition yi ñu yéegi foofu ñu fay nekkee ci la ñuy def suñu rapport ba ba ko c'est dire que. Hmm. bokk na léegi léegi hmm. euh, euh, fan ngeen jaar ba tey la woon démb woon ni ngeen mën a xëy na am accès ci prison yi ak yeneen bërëb yoo xam ni euh, peut-être bi rajo di doog a juddu mënu leen ko woon. waaw loolu mooy li wax condition kii bi la loolu dafa nekk culture boo xam ne da nga koy def. di ko wax di ko wax ba nit ñi dégg ko ñu commencé di ko sóoraale muy plaidoyer bi parce que plaidoyer bi lu am solo la bañ demee ba gis ne waaw xam nga début bi ñun daanañu def ay ay ay kii observation élection par exemple mm-hmm. élection ñun ñoo ko fi njëkk a observé fi njëkk a def observation élection te def alors c'était pas évident mm. li ñu xamoon mooy ñu jege bitim réew ñëw di observé ci mm. suñuy réew li ñu xamoon mooy organisation yi jógee bitim réew am Amnesty yi yeneen suñu ay xarit lañ mais dañ daan ñëw ñoom ñoom ñu ngi basé wu Londres ñu ngi ñu ngi basé États-Unis ñoom ñoo daan ñëw Afrique di saytu Afrique léegi nag ñu ne ji war naa ñu libéré aussi droit de l'homme ñu ñuy libéré euh, euh, suñu suñu suñu suñu réew yi indépendance boobu moo ci lu gën a sosraloo la hmm. alors euh, biñ daan xool élection yi maa fàttaliku RADDHO mooy organisation bu njëkk a accrédité pour mu dem saytu élection yi te loolu buñ ko amee tamit dafa fekk ñu def plaidoyer bu am doole. Mm. ak ay relation yi ñu amoon tamit maa ngi gërëm général Cissé général Cissé boobu ministre de l' intérieur moom moo njëkk a defar ay accréditation officielle mm. jox ko RADDHO ne dinaa leen jox ay badge ngeen dem observé mm. ñun tamit yeneen société civile yi daw ñëw RADDHO ñun ñoo leen doon jox. Kasaraɗo ñifo mhm. mos trentreuse hmm, ba ba ba élection yi passé no deux mille deux mille mhm. ñun ñoo doon yi élection yooyu deux jox boobu il fa ñu def ay plaidoyer mhm. wane góor yi que ne nekk ñu fi pour opposer ne ñu fi nekk pour contribuer te ñuy def defuñu ko pour dénoncer ndax dénoncer bi rek Euh, doyul mais dañuy def ay proposition pour mm-hmm. tàmm tamit plaidoyer boobu dañ koy def au niveau national mm-hmm. def ko ci assemblée def ko ci autorité yi dem ci ci ñi nga xam ne ñooy kilifa yi kilifa diine yi dem nañ parce que bi def affaire euh, xeex ak euh, mutilation génitale yi waaw mm-hmm. ah, yooyu ak mariage précoce yi dañ ci boole kilifa diine yi ba nga xam ne gis nañu liggéey bi buñ ko deful bu dem ci boolewul du yegg dañ leen ci boole am ñu xam ñu am ñoo xam ne ni am nañ xam-xam bu leen may ñu mun a euh, basé wu ci religion bi wax ne lii baaxul ñooñu ñëw ñu jàppale ba liggéey boobu yegg fi mu yegg noonu lañ koy doxalee benn par benn ci au niveau international tamit par mu am ay yeneen kuréel mm-hmm. yoo xam ne réew yi dañ fay dem mm-hmm. africaine lu mel ni Nations Unies mm-hmm. Nations Unies état yi fa ko bokk kenn du benn état ndax ñu bari ñu xamoo dañ naan voilà yéen dañ leen di dicté ah Nations Unies Nations Unies du dicté Nations Unies ay état la Sénégal ci boppam ca bokk nguur yëpp ñoo ko bokk. Hmm. foofa dafa am kuréel yoo xam ne dañ fay saytu liggéey bi dañ naan nguur yi alors li ngeen di def lan ngeen def ci ak ak yelleefu doomu aadama lan ngeen def ci yi lan ngeen jigéen ñi lan ngeen def ci affaire. droit économique socio culturel ah njàng mi. alors euh, loolu yëpp dafa nekk liggéey boo xam ne nii mhm. saytu boo xam ne dañ def ah, ah, ci ci réew yi ñun tamit dañuy dem foofu. Mhm. buñ demee ci Nations Unies bu ñuy saytu ci Afrique mhm. dañuy toog réew yëpp ñu ne voilà ñun nii la demee lan mooy seen rapport ñoom ñu joxe rapport ñun tamit dañuy yóbbu suñu rapport daan ne ah ñun de suñu réew. ci wàll bi ak wàll wi am na fi góorgóorlu waaye ci wàll wi def na lu bari lu mu war a def su ko defee euh, ñoom dina ñuy déglu parce que gis nañu ne si suñu nguur yi ñaari suñu réew la ñuy gën a déglu ah que ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi. Hmm. bu boobaa ñun tam influence bi foofu dafay jaaree am na ñu ko naan gisee naan dañuy dem di weeje waaye demuñ di weeje <laughs> dañu dem di waxal nit ñi li xew ci àdduna bi li xew ci pour que ñoom aussi ñu si bàyyi xel ñu ñëwee si ñu koy boole ci seen ak boole ko ci seen ay programme loolu daal liggéey la boo xam ne boo bokk ci tamit mhm. ci liggéey bi éducation aux droits humains mhm. ñi nga xam ne dañuy former jàngal ñu ñuy euh, renforcer seen capacité ah, ci leen yee ci ak ak yelleef doom ak yelleef yi ñu am ñoom ñoom ñoom citoyen ci boppam ndax citoyen dañ ko war a forme ba mu yeewu mm-hmm. ba xam moom lan mooy àqam ak lan mooy yelleefam ak nan la ko mun a jotee nan la ci mun a jotee mm-hmm. boobaa tamit day fekk mbir yi gën a yomb loolu mooy liggéey bi nga xam dañ koy def ay ati at ba mu door a aboutir ci lii muy yomb yomb yi am tey ci wàll googu. Mhm. Mhm. alors nan ngeen def ba intégré fu mel ni Nations Unies parce que tëbu leen tëb rek mu sotti xëy na def ngeen plaidoyer def ngeen mais euh, réellement lan moo leen may ngeen mën a yegg fu mel ni Nations Unies ak yeneen kuréel yoo xam ne tey bokk ngeen ci am fa statut consultatif. waaw statut consultatif moom da nga koy defar ñoom dafa am critère yoo xam ne ni boo ko amee mën nga def demande nga wax ne man organisation bu bu sérieuse la buy liggéey ci Afrique wala ci benn réew te am na statut statut légal maanaam ci sa réew reconnaître nañu la ba pare nga wane ne yow yaa ngi yaa ngi yaa ngi am ay partenaire yaa ngi liggéey nga joxe rapport ay rapport la yoo xam ne ba léegi nii même boo ko amee da ngay continuer di joxe ay rapport pour wane ne yaa ngi ci liggéey bi yaa ngi liggéey nekkuloo rek organisation fictive yi ñuy créé léegi ñaari nit jóg rek daal di dem ci rajo yi yomb na di wax ba du fët ñu naan ne kii de organisation bu mag la fekk benn nit moo fa nekk wala ñaari nit déedéet boobaa tam boo demee Nations Unies doo am statut hmm. ndax da nga war a rapport wane ne organisation la bu structuré bu am ay banqaas buy liggéey ci Afrique wane liggéey yi ngay def alors boo demee ah la léegi lan fan ngay jógee sa financement diñ ko wax wax noo koy exécuter financement yi noo koy doxalee lan mooy seen seen seen seen mode gouvernance mm. nan ngeen structuré woo kan mooy surveiller xaalis bi kan mooy def ba lépp leer mm. nga am statut mooy statut euh, observateur am nañ ko ci commission africaine des droits de l'homme mm-hmm. nañu statut ci union africaine am nañu statut alors ci nations unies boo xam ne statut ECOSOC booba daf lay may yow bu na enzyme du mun nga am accès ci salle bi di nga mun a joxe sa rapport hmm. saa laaj xalaat boo amee euh, xalaat booy joxe aussi dinañ am ay mécanisme de suivi mooy ay ñoo xam ne dañ leen dénk ay ay bànqaas ci nas ñu koy saytu ñooñu dañu am relation ak yow leen di jokkoo ak ñoom ñu lay laaj des fois boo amee ay besoins yoo xam ne tamit mën nga leen koo laaj cour africaine dañ fay dem ndax am nañu statut boo xam ne boo suñu réew deful déclaration buy maye organisation ak ay individu ñu dem directement ci cour bi mais ñun buñ jaaree ci commission africaine ñu leen bëgg foofu ay mbir ay plainte yoo xam ne ni commission bi mun na ko jàllale ci cour africaine cour africaine des droits de l'homme et des cour CEDEAO dañ fay dem di déposer ay plainte contre ay nguur ci Afrique hmm. cour CEDEAO moom laajul ay yenn euh, critères yu métti yi hmm. boo amee lu la dal en tant que citoyen de la CEDEAO alors mun nga dem foofu directement déposer sa plainte ñu considéré ko donc liggéey la boo xam ne dañ koy def ci biir réew mi di ko def ci bitim réew ci biir réew mi tamit dañuy def ay recours ci ay tribunaux di accompagner ay ay ay victimes yoo xam ne ñu gis nañu ne seen àq ak yelleef dañ ko jalgati mm. bu boobaa ñun mun nañ leen euh, accompagner wutal leen ay avocat yu leen gunge euh, wutal leen euh, ay yi moom la ñuy def ba nga xam ne buñ demee seen dossier dinañ ko considérer mm. daw làq yi même chose bu ñëwee fii dañ leen accompagner ñoom aussi ñu am ay statut réfugié yoo hmm. xam ne ñoom dañoo jógee ci ay réew ñu xeex ñu ñëw fii sonn lool bëgg ko leen jàppale def nañ ko ci réfugié ni britannique hmm. ba dafa leen plaidoyer ba état yi nangu sax ak Nations Unies ñu am hmm. ay programme pour rapatriement volontaire ñi nga xam ne demuñu aussi ñu war leen a mun a jox seen àq ak seen yelleef loolu mooy liggéey yi nga xam ne dañ fonctionnaire mooy tax nga am capacité mun a am statut observateur ci organes yi ak mécanisme yooyu nga doon wax. Mhm. alors fii ci réew mi ñu ngi koy junj sànq quatre-vingt-dix euh, xeex fi àq ak fu doomu aadama yombul woon ba pare euh, ni nga ko waxee nguur gi fi nekkoon amoon na xëy na beneen gis-gis ci seen organisation ndax déjà officiel ci réew mi nii yomboon na si yéen maanaam am récépissé ak yu ci aju ba ñu nangu ne yéen association ngeen boo xam ni bu nekk ngeen surtout ci wàllu kayit. waaw ci wàllu kayit moom xam nga Sénégal moom am jafewul maanaam ni mu yombee fi mu nii nga créer parti politique am kayit bon ñun noonu am ay association am kayit euh, loolu moom Sénégal moom gàcce ngaalaama ci côté boobu bokku am na yeneen réew nag yi ñu war yoo xam ne yombee wu fa noonu da gis nañu organisation yoo xam ne daanaka suñu ay moroom lañ hmm. def nañu ëpp dix ans di wut ay kayit seen réew mënuñ ko am waaw léegi yomb ci boobu pour nga am ko ci début bi yomb na ñi ñu naan statut kii déclaratif da déclarer rek commencé bi fonctionner ndax mm-hmm. euh, suñ constitution ak suñ loi tax moo demee noonu mm-hmm. mais euh, li gën a jafe tey mooy nga am kayit bi ba am lu ab kayit bi c'est-à-dire reconnaissance boobu mm. euh, ñu dem ba mu nekk organisation parce que association lañ lay jox reconnaissance association. d'accord pour nga am reconnaissance bu nekk organisation nag boo xam ne nii euh, dañ lay reconnaître d'utilité publique. Hmm. loolu moom dafa jafe lool ci réew mi. Hmm. <laughs> jafe na lool. Hmm. maanaam ba léegi sax mu ngi ne rajo amu ko. d'accord kon ren utilité publique ñu xam ne yow mi kat. amal nga njëriñ réew mi. ñu daal di lay jox ay soutien. wala ñu defal la ay exonération ci yenn impôts yi. ba léegi ñun dañuy fay impôt. ah oui. dañuy fay impôt bu ñu kiiwul dañuy bu jëndee oto ni dañuy fay impôt bu ñu jëndee lu ñu jëndee dañ koy fay alors que am na réew yoo xam ne boo amee kayit boobu nga liggéey lu mat dix ans nga nekk ci service lu mel ni rajo ñëpp xam nañ ne am na njëriñ mm. ci réew mi dañ lay jox organisation d'utilité publique mm. bu ko defee ñuy moyen di ko dimbalee organisation yi civil dañuy wax nañuy financé parti politique mais mm-hmm. eh, d' accord nañu financé parti politique mais ci financement yi xalaat boobu ñuy xalaat nañ dañuy financé société civile mm-hmm. pourquoi pas loolu dafa nekk loo xam ne nii yelleef la maanaam loolu moo jafe nag kayit boobu noonu moom romb kayit bi kese rek mm-hmm. waaw reconnaissance bi moom yomb na moom Sénégal moom ñetti nit ñu jog rek mun nañu am reconnaissance muy parti muy organe muy association mm-hmm. yomb na yu jafe daal mooy ñu ñu jëmmal ko waaw jox ko jëmm mm-hmm. da nga xam ne reconnaissance dox nañu la ne yow mi kat am nga njëriñ si réew mi mën mm-hmm. nañu voté budget pour yéen daal di leen kuréel yi ñu ñuy defee aide à la presse ñu def ko euh, ñu ngi xalaat tey ñu ne dinañu financer parti politique alors nañu xalaat tamit financer société civile ndax benn liggéey bi la ñuy def dañu bokk fi ñu koy jaaree rek. d'accord euh, seen i financement fan lay jugee yéen organisation surtout rajo. waaw waaw suñuy financement moom organisation yi ci ci euh, financement yi dina am lu tuuti ci pourcentage yu jógee ci ay cotisation ak yooyu mais l'essentiel ci côté ci suñu financement moom ci ay partenaires lay jóge ci ay financement yoo xam ne nii ay yeneen euh, kuréel ñooñu koy ñooñu koy finance day nekk ay kuréel nag yoo xam ne nii dañuy bokk lu ñuy def waaw maanaam ñun ñu ngi liggéey tey ci wàllu xale yi maanaam dina lay jox exemple mm-hmm. ci ndaw yi ñu liggéey ci xale yi nga xam ne ñu ngi leen di bund walla ñu ngi leen di forcé ci exploitation ci comme ay ñu leen di yalwaanoo forcé ah loolu ak ñi nga xam ne protection xale moo leen tax a ci àdduna bi dañuy jàppalante waaw su ko defee ñi nga xam ne ñu ngi ciy liggéey ci yeneeni i gox nekk Afrique du Sud ñenn ñi nekk France ñenn ñi nekk Amérique dañuy jokkoo ak ñu ñenn ñi rajo di liggéey ci mbir moomu boo demee ci wàllu jigéen ñi même chose ay partenaires la ñuy ñuy liggéey ci lu baax même chose ñoom tamit. dañuy jàppale am na fondation yoo xam ne tam dañuy financer mais dañuy def ay appel de appel comme ay fondation ak ay union comme union européenne maanaam comme ni ñuy financer nguur yi rek ñu defee appel d'offre ñu ne ah ñun am nañ financement pour renforcer démocratie ci Sénégal mm. ci ci Afrique mm-hmm. def na daal ne organisation bu bëgg a jot ci financement postuler waaw joxe ay ay ay critères bu possible li nga war a am li nga war a am dañ la war a saytu ci lii ak nangam boo remplir critères yi nga possible hmm. ñu jox la financement loolu tamit dañ fekk ay financement ci mel ni ay union européenne ah, lu mel ni ay ambassade yu nekk ci réew hmm. réew yu mag yi dañ koy def yenn fondation yi dañ koy def comme fondation allemande yi hmm. fondation yi nga xam ne tamit euh, day nekk France wala ci États-Unis wala Angleterre dañ koy def foofu daal dañuy gën a jëlee hmm. de nos moyens. d'accord waaw wolof dafay faral di wax ku la abali bët fu ko neex ngay xool est-ce que ñooñu hmm. di leen jox financement amul benn njeextal boo xam ne dinañ ko am ci seen liggéey ak orientation yi nga xam ne da ngeen koy jël euh, surtout ci àq ak yelleefu doomu aadama li ngeen ciy yëngu. waaw loolu moom am na loolu lu am la wante yow mi nga xam ne yow yaa nekk si réew mi di liggéey te am sa objectif yaa war a xam aussi fa nga jëm parce que euh, fondation yi tamit dañoo bëri bailleurs yi dañoo bëri partenaires yi dañoo bëri mu ngi mel liggéey géej gi rek man jën ngay façon napp quoi hmm. am na nag des nga gis bu jax boo xam ne bii moom jax na lool wóor nga ne boo fa la woon nii rek dàpp waaye bu dee yow jën boobu intéressé wu doo ko doo ko doo ko jàpp. loolu hmm. la demee ah, yow yaay xam li ngay def parce que comme li ma la wax am na ñoo xam ne nii ñu ngi liggéey ci yeneen domaine. Hmm. yoo xam ne nii du suñu domaine yow mun nga fa bañ am def hmm. ndax ñoom tamit bu ñu koy def dañuy def demande bu ne fànn. ñu ngi ko bëgg a def ci lii. nga ñëw ñu financé la boo remplir say critères yow dafoo démocratie. ah ñun bu dee affaire démocratie d'accord bu dee affaire élection su élection ñu ne ñun ñun ñu fi dem ak yelleefu doomu aadama ci jigéen ñi si protéger ndaw ñi ñun mun nañ si dem mais bu demee loo xam ne nii maanaam suñu culture wala suñu niveau de droit hmm. euh, euh, droit droit de l'homme gisi hmm. alors ñun duñ si dugg Mm-hmm. wala bu dee ñun. lu mel ni lu ni mbiru borom ñaari tur nga xam ne dañ ciy joxoñ baraamu tuuma souvent boobu sax ci la bokk. Uh-huh. boobu ci la bokk. mais am na yeneen sax am na yeneen euh, yoo xam ne nii du ñaaru tur yi rek. Mm. am na yeneen yoo xam ne nii ci wàllu gëm-gëm la euh, yoo xam ne nii gis nga ne kii réew fi fi mu jógee bokkul ak ñun ñu xoolee démocratie mm-hmm. bokkul ak ñun ni ñu gisee. àq euh, ak yelleefu doomu aadama ñun du ñu jël financement yooyu mais nag am na ñu koy jël hmm. kon su ma la déggee RADDHO moom euh, nekkul ci défense su mbiru homosexuel ak yu ci aju non non moom yooyu moom loolu franchement euh, gis nañ ci bataay nag ay financement mais duñu ko duñu ko jël hmm. moo suñu am ci financement boo xam ne nii ci domaine boobu noonu lan moo waral loolu choix la wala. Euh, loolu dëppoowul ak suñu culture moo tax. d'accord ah, rado boo gisee rencontre africaine bi. Mm-hmm. africaine mooy bu af comme li ma la wax njëkk organisation yi daan ñëw fii. Mm-hmm. ñoom fële lañ daan jógee ñëw am beneen gis-gis ci Afrique. Mm-hmm. lii nag dafa nekk loo xam ne Afrique lañ ko créé. Mhm. donc ñun dañuy tenir compte ci. ak suñu ay aada. Mhm. ak suñu cosaan. voilà suñu aada ak suñu cosaan. maanaam ak ak yelleefu jigéen ñi sax buñ koy def. Mhm. gis nga dañoo dem ba ci sëriñ yi dem ba ci ñi nga xam ne jàng nañ. ñu mun ñu ko waxal ne ñu ay xarafal jigéen ak daal euh, ma ci wax ji. ñii lii la yoon la wala du yoon. ñi nga xam ne gis nañu ne. Euh, Euh, addis bi addis bi wér na foofu lañ koy wér. d'accord. waaye duñ ko wéer ci wala féminisme bi jógee fële. Mhm. non non non liggéey duñ ko liggéeyee noonu. ñuy joxe financement ndax bu ñu ko joxee ba noppi. dañuy am suivi boo xam ne dañ koy def ci yéen di xool ni ngeen di doxalee ak yooyu. waaw waaw ñoom kay ñoom ñoom moom seen dërëm boo ko jëlee. <laughs> duñ ko leeral foo ko dugal. waaw chaque six mois chaque trois mois sax dañuy ñëw sayto bu jeexee tamit dañuy saytu ba xam ndax ñoom li taxoon nga jël ko dugal nga ko fa wala dugaloo ko fa boo ko fa dugalul danañ la saytu bu booba am na sax fii ñoo xam ne dañ leen porté plainte ñu war a remboursé. ah oui. loolu am na de am na ci am na fii am na fii ay organisation am na yoo moom laa doon wax am na yoo xam ne sax buñ la ko financé même mu nekk ci sa activité mhm. nga xalaat ne yow soo ko jëlee dina indi jafe-jafe mais mhm. booba bañ ko jël am na yoo xam ne boo ko jëlee day diis hmm. dina diis parce dama lay jox organisation yi mel ni union lay financer dafay laaj nga am capacité capacité boo xam ne ni yow financière bu la may nga exécuter yenn programme boo ko amul dina la indil jafe-jafe financement am ay lourdeur am na partenaires yoo xam ne nii alors euh, ah, seen financement boo ko jëlee yow condition yi la wax boo ko plus mieux boo nga bañ ko jël ndax boo ko jëlee doo ko exécuté te deful ko ni nga ko waxee ah, dañ koy fay dañ koy remboursé waaw moom lu am la alors fii ci Sénégal est-ce que RADDHO bi mu taxawee ba tey mës na am problème ak nguur gi parce que souvent ni nga ko waxee dañuy jàpp ne da ngeen dem weeje leen wala ngeen di défendre ñoo xam ne sax xëy na nguur la ñu amal euh, jafe-jafe ndax mës ngeen am euh, benn jaxasoo ak euh, état bu Sénégal. waaw loolu moom duñ fiy jóg dañuy am ay problème ak ay jafe-jafe nag ak nguur yi nga xam ne ñooy nekk sur en place mm. parce que ñaare dañuy gis. Euh, bu ñu xafee ba toog rek da ngay leen da ngay leen compte loolu gisee mbir yi waaw loolu moom dañ koy am gis nga sax problème bi amoon ci vingt trois juin bi mm. même vingt trois bi ak alintim euh, gis ngeen ni mu amoon problème foofu alors euh, bañu bañu bañu bañu bañu gaañ ko mm. ah ba mu avant loolu moom ñun alintim jàpp nañ ko fi yóbbu ko tëj ko bëgg ko tëj alors yëpp fi taxaw ba ñu génne ko ci ay affaire yu ndaw yoo xam ne nii bon ay armes yoo xam ne nii état major si boppam moo ñu ko joxoon armes yuñ désaffecté hmm. xam nga boobu ñu ñu ngi ci programme Casamance bi di def euh, naan wala nañ rebelles yi nañ déposé seen armes yi te dañ daan ñëw indi ay armes yoo xam ne ko daan yett ak bant teg ko taal hmm. muy nekk symbolique ñu dem ma mu yàgg am ci état major bi suñu xamaale mu ne yéen euh, arme bi ngeen di teg nii ngeen di ay yett bant mun ngeen jël ay arme yu yàqu yi ngeen taal ko hmm. ñu dem nag état foofu ay arme yu yàqu yoo xam ne baaxul dañu ko xam ko waxee dañoo dindi sax kii bi yuur gi hmm. dañ ko yulli waaw bant bi ñu may ñu denc ko foofu def ci ay activité Casamance ba am yi parti bu desoon foofu hmm. xaw benn policier ñëw foofu doon laaj man dafa bëgg a saw ñu may ko mu dugg ci duus bi gis ko hmm. daal di ne voilà rajo dañuy def ay trafic ay armes ay hmm. kii <laughs> yooyu <laughs> amoon nañ si ay jafe-jafe yooyu day fekk tamit nga am ay jafe-jafe bi fi nekk neexoo wala ñoom bu leen neexee rek mun la defal benn motif wala kii la hmm. sonal la ci gis nañ tamit nga xamee ne Durban gën na deux mille un alors euh, ñu ne suñu président day dem Afrique du Sud Euh, Alioune Tine ki nga xam ne moo jiite woon RADDHO ah président bu dee day dem Afrique du Sud ci euh, euh, comme sommet bi nga xam ne dañ koy def contre le racisme mm-hmm. nar fa wax lii mu toog ñu daal di koy woo yóbbu ko dig xam nga yu mel noonu amoon na fi gis nañ ko ci PS waxoon naa la sànq bi ñu doon def affaire prison yi nit ñi doon considéré. Mm-hmm. ak ci yeneen sax ah, am na ñu sax ay maa ngi ko enquête bu ñu doon def ci fo déplacé yi ñu dem Casamance ak Kolda mm. nga xam ne àll bi gouverneur bi si boppam moo ne ñu ma jàpp leen ñun tamit ñu insister mu topp yónni ay sax ñu ci village yi des fois ñu téye ñu des xam nga dañu daan jënd jëtal boobu mm. ba ci régime bii sax dangay ngay gis am na tamit ay jafe-jafe yoo xam ne dañ koy am ak ñoom ci ay yenn configuration yi mm-hmm. eh, eh, maanaam dañ naan ñii daal c'est des empêcheurs de tourner en rond yàqu liggéey mm-hmm. waaw mieux moo ñu bàyyi politique rek ñu dem waaw bi nga gisee sax président sax bu muy def consultation yi mu doon def ni gisee ci benn organisation droit de l'homme woowu leen ci ah droit de l'homme bokku ci de mm-hmm. pour ñoom droit de l'homme dafay gêner nit ñi li ñuy def moo tax xëy na di ñeen ci boole waaw moom daal dañuy am jafe-jafe bu baax ak ñi nga xam ne dañuy nekk pouvoir hmm. maanaam boo ñëwee opposition nag day toujours da ngay neexoo ak ñoom ndax ñu ci bëri ci opposition yi dañuy lonkalante ak organisation société civile waaw ñooy ànd daal ñaare am na ci xeex yoo xam ne ñoo koy bokk di def hmm. waaye bis bu ñu nekkee pouvoir moom dootoo leen neexoo noonu hmm. loolu moom c'est naturel sax waaw fii sax am nañu si toujours ay pexe ak ay intelligence bu ñu koy doxalee. Mm. gis nañu ne ci yeneen réew Afrique yi loolu. Euh, Mm, ñu jéggalu ci déggante bi yenn saay mu xaw a naqadi waaye mbiru téléphone moo di demee coronavirus bi tax gisee yombul fi mu ne waxtaan yu bëri daanaka euh, mode télétravail la koy def alors euh, ñu des ba tey ci euh, RADDHO Sadikh ñas ma fàttali ni secretaire général u RADDHO nga yow lañu dalal tey ci démb ak tey di fàttaliku taxawaayu RADDHO ñaar fukki fan ak benn weeru avril atum 1990 ko sancoon euh, fii ci senegal ban xeex ngeen fi xeex boo xam ne marqué na la lool ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama bi ma gën a marqué kay mooy bi nga xam ne mooy euh, li nga xam ne moom laa doon wax fii léegi ci xeex ci àq ak yelleef yi nga xam ne yemale góor yi ak jigéen mm, ci réew mi loolu parité boobu am na solo lool ci xeex bi ñu doon xeex am na tamit solo xeex bi xeex ci wàllu ndaw yi tout tànk yi ba léegi sax des na wante gis nañu ne euh, ñu ngi leen di boole léegi ci programme yi mm-hmm. euh, nguur yi pour ñu xeex ba nga xam ne tout tànk nañ ko respecté euh, taxawaalu yi nga xam ne ñu ngi leen koy def di leen exploité ci réew mi xeex boobu tamit lu am solo la xeex tamit ci wàllu démocratie ba nga xam ne élection léegi société civile ci boppam mooy nekk observateur bi bu mm. njëkk ba ñu ay observateur internationaux lañ daan am ñetti fan lañ daan def ci réew mi daal di génn ne voilà nii la fii jaar ak bi léegi nag dem nañ ba nga xam ne observateur nationaux yi mm. dañ leen boole ci mbir mi ba dañ ko légiférer léegi ñu ngi ci code bi code bi dugal nañ ko fi bu mm. njëkk ba amuloon ba amuloon benn base légale waaw dañ daan wax wax ne yéen mënu leen nekk suivi et partie mënu leen ah war a dem voté ji ngeen naan da di observé ay élection léegi gis nañ ne loolu mm-hmm. mun na nekk xeex nañu ko mm-hmm. war na mun a nekk xeex bi noonu xeex tamit ci vingt trois juin euh, m vingt trois bi lu am solo rek ci wàllu démocratie mm-hmm. wane ne touche pas à ma constitution am na mbir boo xam ne euh, euh, comme ni ñuy wax Sénégal léegi am nañ conscience constitutionnelle nit ki xam nañu lan mooy constitution biñ ko defee dañ ko war a dañ ko war a sàmm dañ ko war a euh, respecté yi respecté consi xeex boobu démocratie la xeex bu am solo la wax nañ tamit ci wàllu Casamance Casamance comme ni ma ko waxee am na ay dem fa sax yombuloon ñun dañ fa daan dem dafay gëstu ji saytu ak ak yelleefu doomu aadama ndax am na nay jot am nay période c'est yombewuloon noonu daal maanaam amoon na ay façon torture ak façon yoo xam ne nii ñu naan délit de faciès sax amoon na fa dañ naan jàpp nit parce que moom sant bi nii rek wala kanam bi nii alors ñu bundu la loolu amoon na dañ ko xeex yóbbu nañ Union africaine ba ci commission africaine wax ko fa ñooñu ñëw saytu ko Casamance loolu def nañ ko ba léegi gis nga léegi ak ak doomu aadama ñu ngi koy respecté gën nañ koo respecté ci ci ci ci zone boobu ci waalu réfugié yi tamit xeex nañ ci xeex bu am solo comme nu ma ko waxee réfugié mauritanien yi moom bu ñu ñëwee fii soixante mille lañ woon ñu répartir leen ci ay camps camps yi nekk ci au nord de du Sénégal euh, ñun bokk nañ ci ñu doon def waaye pour que organisation internationale yi ñëw jàppale leen ci seen dund xeex pour que Sénégal reconnaître leen comme ay réfugiés Mauritanie boobu daf daan diingat mais amul benn réfugié Sénégal ñoom ñëpp ay sénégalais lañ ñoom ñu ne duñu ay sénégalais ay Mauritaniens la loolu xeex la woon boo xam ne ni def nañ ko ba nga xam ne Mauritanie ci boppam nangu na ne ñoom ay réfugié lañ Nations Unies ACR nangu ko Sénégal nangu ko ba ñu def ay euh, organiser ay ay ay mouvement de rapatriement volontaire da une partie dem ñibbi une partie moo fi des ba léegi te ñooñu ñu ngi continuer di xeex pour aussi ñu am seen ak ak surtout ñu am kayit yi nga xam ne moom la war a am ñoom pour nekk euh, ay ay ay ay ay doomu adama ndax boo demee ba amatoo kayit mm-hmm. da ngay nekk apatride mooy doo amuloo benn réew mm-hmm. amuloo kayitu Mauritanie amuloo kayitu Sénégal amoo kayitu réfugié loolu dafa nekk mbir moo xam ne lu métti la te mu ngi dal ci kaw yenn doomu Mauritanien yi nekk fii ci Sénégal mm. ñu ngi ci continuer bi ci xeex ci biir réew mi ak ci bitim réew xeex boobu lu solo la yoo xam ne nii alors euh, rajo def na ko ak yeneen ak yeneen yoo xam ne xëy ma yi moo gis <laughs> jàpp. Mm. Mm. alors sooy natt tey ak ak yelleefu doomu aadama ci Sénégal ndax ñu ngi sàmmoonte ak moom waa wala déet. waaw xam nga sàmmonteeg ak ak yelleefu doomu aadama moom moo jafe mais bu ma koy natt ma teg ko ci échelle trente ans mun naa la ne évolution am na boo koy natt nga teg ko ci échelle euh, vingt ans mun nga gis ne évolution am na comme mu ma ko waxee ci début bi ba léegi wante ak euh, ak yelleef moom doomu aadama dafa da ngay feeñ waaye di jeex mu tey bu may naq ci affaire euh, élection démocratie mun na ne évolution am na ci parité ak yenn yi loi yu ñu jël contre les violences faites aux femmes am na ay loi yu baax yu ñu jël tey ñu ngi ni maanaam libéré ay ay prisonniers ak yooyu yooyu am nañu ay solo am na évolution yi nga xam ne sax am na ci prison yi ndax du nekk léegi du benn de hmm. bu benn évolution am na côté boobu mais boo xoolaatee nga xool léegi droit santé par exemple éducation santé mhm. habitat nga gis euh, ci monde rural bi ah, ñi nga xam ne ñoo ñoo nekk ci ndóol ñi nga xam ne dañu soxla alors euh, liggéey mhm. dafa nekk lu def lu bëri loo xam ne nii war nañu ko euh, war nañ ko def pour ak ak yeneen doomu aadama mun a jag ndax pour mu jag il faut que ndaw yi am xëy am liggéey seen àq ak yelleef ñu mun ko sàmm ñi nga xam ne ñu ngi ci àll euh, bu ñu liggéeyee aussi seen liggéey mu leen a jëriñ ñu mun a ku feebar mun a faju koo xam ne nii tamit euh, soxla nga kër nga war ko mun a am yooyu dafa nekk yoo xam ne ni des na ñu war ci mun a liggéey ñu droit économie socio culturel ndax pendant ay vingt même ñun dañoo xawoon privilégié ba mu ëpp hmm. droit civil et politique hmm. droit civil et politique am na solo lool waaye bu droit économique socio culturel bi baaxul droit civil et politique bi daanaka du amul njëriñ hmm. loolu moo lay wan ne ñaari bànqaas la yoo xam ne nii buñ ci taxawul day mel ni benn tànk ngay def waaw xam yelleefu doomu aadama daal lu jafee natt la buñ koy natt sax ci Nations Unies noonu lañ koy nattee dañ naan yéen seen réew ah, est-ce que am na liberté de presse ñu ne waa droit civil et politique la am na waaye ñu naa est-ce que jàpp nañ ko ay journaliste ñu waaw am na journaliste yi ñu jàppoon ñu ne est-ce que euh, seen dëkk am na liberté de maanaam kum am sa diine bu ko nga doxal ko nu mu la neexe ñu ne am na ñu ne mais seen dëkk ñaata hôpitaux ngeen am ci capital bi. soo jëlee cent mille personnes ñaata médecin ñoo leen di saytu ñu ah loolu xaw na néew suñu dëkk ñu ne boo jëlee cent mille personnes ñaata avocat la ñoo leen di so topp ñu ne loolu xaw na néew maanaam loolu lañ koy nattee ndax ñaata école ngeen am pour temps de d'habitat loolu tamit mooy domaine bi nga xam ne daal moo gën a des ci réew mi di seet ba nga xam ne euh, alors ratio yooyu dinañ ko jalgati bu baax ba nga xam ne euh, dinañ ko jubanti bu baax mm. ba nit ñi mun a mun a mun a mun a féex mun a nekk ci jàmm mm-hmm. ndax pour nga nekk en sécurité il faut que ratio yooyu nombre nombre d'infirmiers nombre d'avocats nombre d'instituteurs nombre d'écoles nombre d'hôpitaux yooyu dafa nekk lu am solo yoo xam ne bu ñu si jógul ëllëg gis nga tey li ñu daal nii mbas bi dafa fekk ñu am ay structure yoo xam ne sax xaw nañ ko mun a attan mais bu ñamee ba yenn dayo yi dootuñ ko attan ndax ñun amuñu infrastructure xam ne nii beneen na noo xam ne nii dinañ a jël ay yu bëri bëri bëri noonu waaw mais loolu lu am na lu des ci liberté yi hmm. gis nañu manifestation yu bëri ñaare daa lañ koy interdire voilà ñu ne voilà fii euh, amu leen possibilité def manifestation te fekk duñ ko wéer ci lu dëgër. Mhm. bokk na aussi ci li ngeen wax a def xëy na yéen ñi ba ñu xam seen àq ak yelleef euh, ngir ñoom itam ñu mën a euh, yéen fu ngeen nekkul taxawal fa seen bopp xeex li nga xam ne loolu liggéey bu liggéey bu am solo la mhm. ñu koy def sax waaye dafa def ba nit ñi tamit nekk am culture li ñuy wax culture droit bi nii culture démocratie culture la boo xam ne nii dañ ci war a yee nit ñi ñi xam ko parce que bu ko nit ñi xamee lee seen bopp ñoom dina yomb ci ñoom dañ dina yomb ci ñun ñu défendre ak yooyu parce que nit ñi si seen bopp ñoo koy défendre seen bopp mm-hmm. ñun am ay jéego nag waaye dafa des loo xam ne nii euh, war nañ continuer ci programme éducation yooyu sensibilisation te loolu tamit médias yi ci lañ bokk am ay ay programme yoo xam ne ni euh, dinañ ko nekk ay relais pour que euh, sensibilisation boobu éducation bi information boobu ndaw ba nga xam ne nit ñi ci seen bopp ñooy taxaw tem di défendre seen ak ak seen yelle alors fi ñuy jeexalee mooy euh, lu la ñeel euh, daanaka léegi nga def ñaari at ci bopp RADDHO nga wuutu fa ndem si yàlla abu Aboubacry Mbodj ñuy dellu di ñaan yàlla mu woy woyfal suuf ci kawam bi nga ñëwee am na feuille de boo xam ne moom nga tegoon foo ci toll. ma je pense que bon li mon bi ñu ñëwee euh, li ci li ci li rek mooy li ñu continuer programme bi nga xam ne ndem si yàlla Aboubacry Mbodj moom lañ fekkoon mu koy doxal. ci àq ak yelleefu doomu aadama ak yokk ci tuuti yi ñu ci yokk mooy gën nañu fësal droit économique socioculturel yooyu ma doon wax mhm. alors euh, gën a fësal parce que droit économique socioculturel am na ñaari bunt yoo koy jaare ci groupe yi mooy ci kuréel yi nga xam ñoom ñoo koy aajowoo mhm. kuréel yi ko aajo aajowoo ndaw yi ci lañ bokk mhm. tout tànk yi ci lañ bokk ah, ah, bokk na ci tamit jigéen ñi bokk na ci migrants yi réfugiés yi ñoo ñooñu dañoo nekk ay kuréel yoo xam ne boo leen aaree mhm. danga aar seen àq ak seen yelleef ci wàllu droit économique socioculturel maanaam li ci bees daal mooy dugal nañ ci droit yoo xam ne ni daawuñ ci liggéey bu baax comme les migrants comme euh, tout tànk yi ñu liggéey bu gën a fës ci ci ci ci réfugié yi mhm. ak euh, ci àq jigéen ñi alors euh, boole ci nag li nga xam ne fekkoon nañ ñoom ñu ko daan def ñoom à l'ultime ñoom euh, ndéem fi yàlla Aboubacry Mbodj ak ndéem fi yàlla Waly Coly Faye mm-hmm. loolu moo ci moo ci moo ci moo ci yokk boo amul lenn loo ci yokk xam naa ñu yemale fii waxtaan bi amoon nañu mbégte lool euh, dalal la ci démb ak tey ngir waxtaanee Raddho ak euh, jaar-jaaram rawatina ak fi mu toll tey ci liggéey waaw waaw leen di gërëm di leen sant di reconnaître liggéey bu mag bu ngeen di def tamit ndax yéen a ngi def seen rôle ci wàll ah, yéen ñi seen àq ak seen yelleef ah, di dalal organisation bu mel ni RADDHO alors euh, lu am solo la ndax euh, gis nañu ne ci information ci lu bëri mun a jaar mm-hmm. ñun dañoo soxla tamit suñu xalaat ak suñu jëf jàllale ko ci euh, média yi ba nit ñi mun see jot ba ñu xam bu baax li ñuy def ba nga xam ne tam nit ñi dinañ leen ci seen ak ak yelleef yelleef nag ak seen devoir hmm. ndax devoir moom moom ci Afrique loolu moom ak ak yelleef doomu aadama dafay ànd ak devoir hmm. ndax gis nañ charte africaine des droits de l'homme et des peuples lu ko différencier ak yeneen texte yëpp hmm. mooy moom dafa def droit ak devoir ñu ne ni benn benn pièce xaalis ñaari côté lay am boo deful sa devoir doo mun jot sa àq mhm. sa àq pour nga jot ci da nga war a def li nga xam ne mooy sa obligation te mooy sa mooy sa wareef mhm. waaw wareef nag lu am solo la ci Afrique mhm. te mooy tax ñu mun a boole ñaar yi jërëjëf Sadikh Niass ñu ngi lay gërëm fàttali ni yow yaay secrétaire général bu RADDHO amoon nañu mbégte lool dalal la ciy dem ak Tay maa leen gën beaucoup mbokk yi kon mu nekkoon sa euh, Sadikh Niass euh, secretaire général bu RADDHO ñu doon waxtaanee euh, kuréel googu ñu sampoon ñaar fukki fan ak benn weeru avril atum 1990 ba tey jii nag mu def jaar-jaar yu am solo ci Sénégal ak ci Afrique looloo nekkoon waxtaan wi tey ci démb ak tey ñuy gërëm jaaw jàllo mi fare woon ci wàllu machine bi Fatou Thiam nga ma nekkoon ci kàddu gi cant ngërëm ñeel na leen yéen ñu doon déglu ñu digle dig leen dajee beneen dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen jërë ngeen jëf ñu yendoog jàmm